thank you very much mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax ci time bi ñu ngi waxtaan ak honorable Henry Gomez honorable thank you very much uh, ci time bi honorable Henry Gomez nag moom moo jiite parti bi GPDP waaye tamit special advice la si njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow honorable thank you very much uh, ci uh, time bi first things first ñu laaj la sa réaction ci li nga xam ne mooy congress bu passé and again doomi parti bi GPDP óolu nañ la delloowaat la ci li nga xam ne moom mooy place bi nga jiite parti bi lan mooy sa réaction towards mbir mi apa ndari mangla ngi nuyu di la gërëm di la santa di nuyu raja bi nga liggéeyal di leen gërëm di leen santa ñu fa liggéey ñëpp di nuyu njiiti réew mi muy suma broda di suma xarit président Adama baro di ko ndokali ci fête bi ñoo dugga si di ko ne ko merry christmas ane prosperos new year in advance di ko ndokale tam gambian si ci biir Gambia ak ñi ci biti ñëpp di leen ne leen Merry Christmas ane prosperous New Year te di leen ñaanalit fan ak wér te yàlla wéral cër yi te yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp te defal euh, suñu réew mi jàmm ah, pandari maa ngi gërëm yaay ji ma jur di gërëm suma jabar ak sumay doom ci taxaw giñ ma taxaw ak sumay militants ak exécutif yi GPDP yëpp ndaxte ca dëgg digga GPDP ñu nangu ko nangu wuñ ko doon na mag fim ne ndaxte ku xool congrès si GPDP fi mu nekk nii bu ñoo xeeb GPDP seen musiba la ñoo xeeb ndaxte fi mu nekk nii du tiitaru waaye GPDP doon na political party boo xam ne mun naa demal boppam bon nañ bàyyi xel nañ bàyyi xel ci nu ñoo demee ak GPDP ndaxte GPDP. Euh, congrès gi dem na ci yoon dem na ci yar ak teggin xeex amu fa xuloo amu fa ŋaayoo amu fa te sant nañ ci yàlla mm. te ñu ngee gërëm tam njiiti réew mi di ko wax jërëjëf ci taxawu gim ñu taxawu as a political party and taxawu gim ñu taxawu as partner bon te maa ngee gërëm Gambien si yëpp ñi nga xam ne ñëw nañ jàppale nañ ñu ci congrès gi. Mm-hmm. te ñëw nañ bokka ci GPDP ndaxte ñu bëri fi mu nekk ñëw nañ bokka GPDP waaye nañ xam ne tam GPDP man moomuma ko. Mm-hmm. electaat nañ ma as a leader and secretary general waaye moomuma GPDP GPDP Gambia yee ko moom especially ndaw ñi ak jigéen ñi bon ku bugg a bokk GPDP rek bunte yee parenteer yee siling yi yëpp a ngi ubbeeku. ku nekk mun ngaa ñëw ñun GPDP loolu la fa nekk pour Gambien si la fa nekk ak gan yi fi nekk. Mhm. waaw bon suñ bunte yaa ngi ubbeeku di gërëm yàlla waat di ko sant te di la gërëm yow it ci taxawu gi ñu taxawu ci suñ congrès gi di gërëm télévision yeeg media house yeeg. radio station yeeg ñëpp ñi nga xam ne taxawu nañ ñu boot nañ ñu ndaxte benn loxo du tàccu mhm. bu doon GPDP rek la duñ dem mhm. waaye mbooloo mi yëpp gërëm nañ leen sant nañ leen di leen wax jërëjëf wa gis nañ fa tamit euh, sen alliance partner si euh, ñew nañ tamit ndax lolu mi ngi firnel ni digante bi mi ngi rata a pa alliance partner si yëpp maa ngi leena gërem di leen sant député speaker mu fa won honorable sidi ndjay euh, ma si ñom du sano ankul special advisor ankul dembo bay force special advisor tamsir an special advisor baji security advisor ñepp ang fa won neem dem even suma broda li mu ngi fa woon soo looloo ngee wone rek ne fii ñaaka déggoo amul ñaaka waxtaana dee am waaye ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp Gambia lañ gis tey pati yi ku fi am congrès ñëppaay booloo ñëw uyu la bon ñun ñëpp benn lañ nañ xool di interest of this country dëkk bi nañ ko gis because Gambia tey bu amutoon pati si du ñu am Gambien bu ñu amutoon pâtissier yi du ñu soo boo gisee pâtissier yi am Gambien yee nekk ci suñ gannaaw moo tax tey pati yi mun a demal seen boppa pati yi ñuy leen a ooyee political parties bon gërëm naa si ñëpp te jàppante gi nañ ko gën a dëgëral ba mu dëgër ba nga xam ne kenn du ñu mun a féewaale te kenn du jógee ci biti ñëw yaaxa jàmm ji réew mi am dafa am solo pati yi buñ booloo nekk benn rek. kenn du mun a jalgati luwaa gi te kenn du mun a yaaxa réew mi bon bu politique jotee nañ politique nañ ñiru nañ ngararu nañ ŋaya waaye bu politique jeexee rek nañ bokka ndey bokka bàyyi for the interest of this country honorable gis nañ nag euh, you know yaa ngi euh, taxaw pam ne li nga xam ne loolu moom mooy euh, coup daal lu ñu war a daxalu la pare yaa ngi koo condemn panderi buñ mu munee fàttaliku 2006 biñ buggee coup d'état Jammeh defoon nañ fi 10000 match bokkoon naa si ñi nga xam ne te jamono jooju opposition la waaye bokkoon naa si ñi nga xam ne bokkoon naa si groupe gi because honorable ah, a Jahumpa Ceesay mun naa attest to that bokkoon naa ci ak luma ma against Jammeh waaye bokkoon naa ci pour wone ne réew mi suñ réew la. coup d'état du yóbbu dëkk fenn coup d'état dafa delloo dëkk gannaaw dafa delloo dëkk gannaaw ñi jógoon pour coup d'état man yërëmuma leen seeni njaboot laa yërëm ak seeni famille laa yërëm ndaxte tey famille yooyu ñoo cee soonasi di jël ilooya di daw ak a ñëw di tëdd guddi duñ nelaw di jooy seen njaboot gi di laajte ana suñ papa yi Gisuma Papa Babali, where is my father? dafa sad because kuy jóg tey pour coup d'état na nga xam coup d'état lotori la lotori la you are either going to die or you are going to win affaire bi loolu la ñaari tablette sa nekk si box bi de benn nga génnee benn pil bu laa bu laa jox ndam mbaa nga unlocki nga pil bi because coup d'état moom looloo fa nekk te dama fiil ne yàgg naa ko wax te saa yu nekka ma wax ko aadama baro yàlla moo ko indi jox ko nguur te nguuri Adama baro ku bugg a jaaree ci paranteer oo bunti gannaawu yaa ngi indil sa bopp problème ndaxte coup d'état treason la loolu buñ ko rafetal treason la There is in the street because yow do niti jaama pour man ñun suñ wax mooy you are either part of the problem or part of the solution. Mm. You are either with us or against us. And if you are against us, you are an enemy and we are going to treat you as an enemy. Nyom nag jok nañ pull Daniel suñ nguur fi mu nekk nii ne Adama baro démocrate la président Arama Baro démocrate la fi mu nekk they will take actions on those people man faralewu faraluma coup d'état tey faraluma coup d'état elek. Bandary between two years nyata coup d'état am in West Africa why I am so disappointed ci leena uniform bi dañ ko war a respect te uniform bi whether army bi la whether navy bi la whether police bi la whether immigration bi la name it extra extra institutions yooyu yëpp pour taxaw pour gis ne doomu aadama yi am nañ jàmm pour gis ne dëkka dem na kanam waaye defuñ institution yooyu pour ne da ko war a use da nga war a use uniform bi pour daaneel nguur dafa mel ni tey West Africa kuy dem ci army oo ngay dem ci police nañ na army sax yow sax xalaat sa intention mooy damaa dem pour sol uniform boobu tu pour am chance pour daaneel nguur because significant significant boobu la la la la la ñoo jox fi mu nekk because nonsense coup d'état yi ngaa dégg yëpp mostly ci army bi laa jógee So dafa mel ni suma waay ñoom dañoo dem pour sol uniforme pour Daniel nguur te man mom waxuma sax ci turi aadama baro waaye man lima gum man honorable henry gomez mooy home for the homeless but no mercy for the merciless because ku jóg pour coup d'état yow ken lool parenga sa rek nga because coup d'état mostly dara dina tuuru bakkan dina wada so yow halat loolu yépp yow yaa ngi xalaat sa own selfish interest bon man dama ne président Adama Barrow na set a bright example let the law set a bright example pour wane ne Gambia fi neka we have chosen democracy we have chosen democracy and that democracy came to stay bon koo xam ne jóg na pour coup d'état na luwaa bi dal ci sa kaw buñ la te ne yit yaa ngi daw na nga xam ne nëbu nëbu nanjo lum yàgga yàgga yàgga jaan ci suuf tànk ci suuf dinañ la téye bon maa ngi ñaan Gambian si di leen ñaxtu especially ndaw ñi. waaw foofu laa bëggoon seen bopp ci mbiri coup d'état te kuñ dégg muy wax waxi coup d'état oo daaneel nguur nañ dem ci niaabay police station yi ñu report leen mbaate ñu seet. ci government bi kuñ óolu ñu wax wax ji te it koo xam ne bokka nga ci coup di daw dugga ci kër jàmbur oo ñuy laa laaxa di la nuba ki sàcca ki lekka ki jënda ki jaayi ñëpp sàccakat lañ ka kay bugga coup ak ki xaaba koppiis bi ñépp ci benn mbaxana lañ leen a teg bon nañ fexe ñu distance suñ boppa ci problème bi te ndaw ñi man dama leen bugg ci suma xol tey boo xoolee pa ñi dee coup ay lieutenant ñoom nga dégg ñu ne ay sergent ñoom nga dégg ñu ne ñoom ñoo jóg pour daaneel nguur ay capitaine waaye lance corporal bon lan moo nekk ci gannaaw loola lan moo nekk ci gannaaw loola Gambia dafa am ñaan te dinaa la wax leen coup d'état ci Yaya Jammeh laa am Gambian si dañ eewu fi mu nekk Gambian si they are thinking very fast gis nga ak luñ mun a ŋàññi wante ak lu ñoo mun di wax ne réew mi mitti na réew mi nii na waaye seen jàmm kenn du ko jël ci seen loxo bon nañ leen fexe ñu daw xay coup bu ñu ko nangu si dëkk bi fii kuude d'état daf ñoo delloo gannaawu coup d'état daf ñoo tardel because tey fu ñu defee coup d'état ci dëkk bi fii nañ xam leena constitution googu amatul njëriñ because constitution googu la ñoo njëkk jël tegangum fale bu ko defee ñu door di wax waaw dinañ joxe réew mi ci ci civilians bés buñ paree dañoo put everything in place kañ la ñoo put in place kañ Mali ngi nii ba léegi lana fa changé dara Burkina Faso lana fa changé dara Guinée Conakry lana fa ceeñ dara ami bi ñooy téye yépp lu leen neex ñu def nit ñi ñun gis nañ ko jamono yaaya Jammeh gis nañ ko jamono yaaya jamme is tout ça demba rek maa ngeen dégg ci radio bi ñu ngi interview ay nit am na ci ci ci kuru kara gi fii gambian sa ngeen wi wan jamme baak pa awma nothing against loolu jamme mun naa ñëwaat gambia is a gambian citizen waaye jamme pour mu doonaat president si dëkk bi fii is out of it is out of it jamme na xam lena te dinaa ko wax tey for the first time matuna turi jamme jàmme dafa amee dëkk bi 22 years kenn sonalu ko ci ci dëkk gi li moo def Adama Barrow tey di wax ne waa dafaa dellu si dafaa nii dafaa nale jàmme dafa war a ruus loolu 22 years président yow excellence giñ ko oyee sa man fi mu nekk oyeetuma jàmme excellence because xoolatuma ko comme excellence because 22 years yow loo amul di nga ko amaat foo ko amee na bàyyi dëkk bi si jàmma bu buggee ñëw kuy buka a xaru du wax ne dafa xaru dafa xaru nit ñi gis waaye dama bëgg a xaru dama bëgg a xaru kooku bëggut a xaru yaayaa bëggut a ñëw yaaya la gën a ne justice gi bu ñëwee justice gi am na lu fa uyu so dafa buka a create chaos ak buka a génn ci popularité pour nit ñi ne eh jéemus waxati na jàmme na xam time ba moo wax gambian bi ne hey toogal mu toog joju passé na pas jamono jooju passé na na bàyyi Adama Barrow si jàmm mu liggéey mu liggéey liggéeyam waaye saa yu mu ko neexee mu taxaw ubbi gémmiñam gi di bugg a déstabiliser dëkk bi waaw maa ngee ñëwaat maa ngee ñëw ku bugg a ñëw doo taagoo ñëwal ñëwal waaye bu mu jéem a yëngal dëkk bi bu mu jéem a fitna nit ñi bu mu jéem a sonal dëkk bi nañu bàyyi ci suñ jàmm jàmme lim ñu teg 22 years dafa doy. li mu waroon a lekka lekka na ko lim waroon a am am na ko lim waroon a def def na ko lim ñu waroon a dóor dóor nañu fi mu nekk nii nañu bàyyi ci suñ jàmm nañu bàyyi ci suñ jàmm Adama Barrow bu ko ko defoon bi moo nekk président du ko neex yàlla moo ko wax defal defal sa moroom loo xam ne buñ la ko defoon dina la neex bon na jàmme tëj gémmiñam gi jàmme dafa war a passé fi moo xëccoo sax ne political party ko moom moomoon na APRC 22 years moomatut APRC kenn du moom political party gaal dafa budigaal koste na jàmme bàyyi dëkk bi si jàmm bu mu sonal nit ñi ndox mi tuuru na ba pare na jéem a lenen. leneen jàmme jeexal na ci presidency. mu neex ko mu naxari ko his his time is over Honorable, you know, is it fair for uh, anybody pour attempt for uh, Guinea President Barrow uh, undemocratically euh, jaarale ko ci coup d'état ñu ne fair ci President Barrow euh, despite ko mun di wax yëpp. Euh, dama fiil ne loolu feewul man dama ko against completely million percent coup d'état du yëfi nit te kii bugg a coup na xalaat ndax antan na li moo bugg a jël man leena lay wax. maale maale dafa am fu em gis nga coup d'état bii di foul coup d'état bii bu setut a bright exemple golo yi duñ bàyyi di éeg si kaw maa ngi di cukur cakar na set a bright exemple pour wane ne dañ dañ ko elect through box te ku bugg a jël réew mi ci loxoom oo jël ko ci suñ loxo maa ngi la ko waatal in Jesus mighty name boo Jaru ci ballot box bi we are going to deal with you very seriously very very seriously B, we will set a bright example setal affaire yi amul démocratie no mercy for the merciless affaire yi amul démocratie coup d'état even Tuba yi sax tubaab yi amut affaire yi démocratie Trump bi gaa ñi jógee yëngal America ñëpp dañ leen yóbbu ko deal with them very seriously so fi president baro bum fi ray ken fi ya fasa. affaire badia fasa ku ci rek na loi bi deal ak yow very seriously na loi bi deal ak yow very seriously as long as ñu ne democracy, then let, let leave the justice to do their work te bu ci gambian si jog di indi hypocrite ne ñu ngee dem ne ñu ci duga di wax ak di ñaan ak di fay ak because lena la ki dem di ñaan you are part of it because yow xamone nga ne li ku ko def ñu téye loi am na yoon ci yow bon nañ bàyyi loi bi fi mu nekk nañ bàyyi justice minister bi nañ bàyyi minister of interior nañ bàyyi inspector general of police the army ñu def seen work nañ def seen work let justice prevail again uh, loo foog ne moo waroon nekk uh, rôle political party pour uh, preach peace si nit ñi and final rek your final advice to the youth lii jàngal nañu fi mu nekk because tey buñ gisee COPESI ay ndaw yu baree si ne te bon loolu ñun political parties yi fi mu nekk yaagoon nañoo xeex pour génnee military rule because jàmme waxoon na ne démocratie la waaye démocratie la doon buboo waaye is the iron fist moom la amee woon di rule Gambia for 22 years soo bon dafa meloon ni lim ñu tegaloon yëpp lim ñu tegaloon yépp nguuri militaire la woon so affaire yi moom suma waay <laughs> eh, bu ne vice président Jammeh la woon inspector general of police jàmme la woon soo foofu yëpp soo la woon rek waaye benn maan moo doon def yëpp moo doon rul yëpp soo tey président Adama Barrow dafa ubbi dëkk bi man ci suma gis-gis amul ku ko gën a démocrate fi mu nekk nii bi coup d'état bi xewee ba léegi kenn déggut sax mu wax mu ngi ne teg rek dañ koo saaga ndey lu nekk dañoo wax mu ngi ne teg bon Gambia duñ xam liñ am ci président Barrow ba tey mu jóge woon fi ci la ñoo soog a xam seytaane boo am panderi moo gën malayka boo gisangul nañ jàppale président Adama baro nañ muñalantee moom ñu liggéey dëkk bi fu mu em neex ñu xam ne fii la ko yàlla emale ñaan yàlla ne kii yàlla di indi afta moom mu mun a continuer lim fi def tey Gambia ak lu ñoo wax Gambia ngee dem kanam buñ ne dëkk bi neexut nañ dem Mali ñu seet naka la mel nañ dem muritani nañ dem senegal bi ci ruxa bi ñu seet bagages yi eh, dunda gi naka la mel pa dañ fi amoon Covid ñun gisoon nañ bi baro ñëwee ees ci nguur naka la nguur gi doon demee ku nekkaang doon kontaan ku nekkaang doon doon reetaan ñu ñëw corona bi ceeñ dëkk bi ñu jógee ci loolu ñu ngee jooy noppenguñ ñu ñëw Russia Ukraine problème bi mu ngi am tey tubaab yi si seen bopp ñu ngi jooy skyrocket price yi am soo bon miti gi li ñu li ñu oka moo xuri yeneen dëkk yi li oka yeneen dëkk yi moo ñu xuri waaye lii tax ñu mun a overcome pain bi rek mooy ñu respectante te dallu bon maa ngi ñaax political party nain yëpp nañ fàtte suñ problème si nañ fàtte ne lii ak lii ak lii waxoon na ko kii waxoon na nii kii hmm. waxoon na nañ bokk a nekk benn fi mu nekk pour fight dis problem of this foul coup ñu xam fan la dooree ak ñan ñoo ci nekk fuñ jaar ñu dimbali président Adama Barrow nguur kenn nit rek amu na falu doon président bon nañ booloo nekk benn buñ buggantewul sax nañ respectante for the interest of this country te maa ngi ñaan ndaw ñi tam bu leen kenn dugal ci mbiri waxi coup te bu leen kenn dugal ci waxi destabilizing a government ndaxte Adama Barrow ñun ñëpp bokkoon ñu fal ko te ku bugg falu ëllëg danga nangu tey ñu jiite la ndax nga mun a jiite ëllëg bon ndaw ñi nañ distance boppa ci violence nañ distance seen boppa ci problems ndaxte réew mi réewi jàmm la dafa am kilifa yi suñ papa yi suñ yaay yi suñ maam yi suñ maamaati maam yi dañ ñaan jàmm ci dëkk yi te Gambia jaama rekk laa am koo xam ne danga nga jóg pour fitna dëkk yi bilaay yàlla du la jox dëkk te yàlla du la jox maxaaba ga ngaa ut Gambia yàlla taana ku ko neex jine Gambia gi ànd ci nga toog falu waaye boo ko buggee jël bàyyi foos gàcce nga fee am doo falu bon nag maa ngi ñaanal ñëpp jàmm te di wish all Gambians merry Christmas and a prosperous new year in advance yàlla nañ ci dugg ci jàmm te génn ci si jàmm njuuma yi nga xamoon ne jóg nañ pour yëngal réew mi yàlla teg na leen gàcce te yàlla gàcce googu continuer ci seen kaw ba faw te koo xam ne it jóg nga pour yëngal jàmmi réew mi démocratie réew mi yàlla na la yàlla teg xay te teg la naxar ak gàcce man loolu maa ko ñaan te yal na yàlla sotti jàmm ci réew mi te defal njiiti réew mi jàmm